parce que euh, tey li ñu dajale fii alal la boo xam ne bokk moomeel la boo xam ne ñun doomu judde caaroy kaw ñoo koy saytu parce que li ñuy saytu nii li ñu yore nii tey suñu papa yi ñoo fi nekkoon ak sunu yaay yi ba ñuy door métti na trop wax naa ko léegi ci sama euh, discours en français PLCP moo fi andi woon kees bi waaye boo leen xoolee te yaakaar naa ni bu amee benn keesu PLCP de bii de moo fi des waa je parle sous le contrôle des autorités qui sont là donc maa ngi koy gërëm di leen sant gàcce ngaalaama yéen membres yi gàcce ngaalaama yéen groupement de femmes yi gàcce ngaalaama yéen personnel technique bi amuñu seen fay parce que bu ñu amee tey mutuelle ñu koy jël référence mutuelle boo xam ne situation bi mu nekk environnement bi mu nekk du environnement bu favorable de mais bu yàlla defalee si ndimbalam si kàttanam ñu dem ba tey ñu am sañ-sañu naan dañuy woote daje bu toll nii donc dañ naan peccum bu liir bu neexee day jaatee ci Mbàkke lii nag buñ ko mënee tey c'est grâce à l'appui accepté lii buñ ko mënee tey c'est grâce aux partenaires yi ma cité léegi CTI/SN gëm nañ ñu depuis 2014 2015 appui accepté gëm nañu depuis 2014 PLCP bi mu jeexee ak léegi mutuelle bi boppam lay demee FIMF ñëw nañ defal ñu diagnostic en 2016 2017 du ma fàtt nag sunu kilifa yi sunu superviseurs yi sunu contrôleurs yi mooy lu ñuy wax la DRS tey mutuelle bi fierté DRS la direction de la réglementation et de la supervision parce que daf euh, euh, euh, ku ñemee dañ laa déy te ku nangul dëglu ñu conseil la boo tegal si yoon rek résultat rek ngay am. L'autre aspect, c'est l'intégration euh, de la dimension de, de, des femmes quoi, dans ces, dans ces public-là. Donc, yi nga xam cabines spéciales, nous avons des gens nous avons des gens utiliser ko génn dox seen soxla donc même la même la partie GHM mooy gestion de l'hygiène des menstrues donc jigéen nga xam ne yi dañuy toll ci gis ay mbaax ak yooyu noonu yu bëri ñu dem ci marché yeeg yooyu noonu donc am nañu possibilité ci marché yooyu noonu ñu dem accès de citoyen bu soxlaa changement am accès de citoyen yooyu noonu defaru génn continuer seen liggéey donc ñu si bëri soo xoolee mooy ñu si bëri bi bu ñu tollee ci période yooyu du dem liggéey donc moo tax ñu bàyyi woon xel ci loolu noonu inclure ko ci liggéey bi ñuy def ba tey mettre nañ ko en œuvre marché Thiaroye am nañ fa benn fora am nañ fa benn te mu ngi dox donc euh, tey si toile yooyu noonu ñu mettre en œuvre ñu ngi recevoir tey plus de 400 personnes par jour ci ci éducation publique yooyu maa ngi nuyu nag surtout PCA MEC jëriñ réew mi jëriñ naka suqali jàppa jàppoo suqali réew mi bi nga xam ne Khalil Gueye Pape Ibrahima Gueye moo ko jiite. Pape Ibrahima nag foog ma taxaw ci yow li tax may taxaw ci yow danga ko jëf. boo ko jëful woon du ñu taxaw ndax mutuelle bi nga xam ne dañu ñëw tey ngeen laaj ma ma présider leen seen cérémonie assemblée générale nga xam ne li koy jiitu mooy étude yi mutuelle bi def ñu mën ko dégg mën a saytu taxawaay bi nga xam ne mutuelle bi mi ngi koy def ci jokkalante koom ndax ma ngay am njëriñ wala amul njëriñ dama jàpp ne étude boobu bu ngeen ko defee ngir gën a ñoŋal liggéey bi la waaye liggéey bi jaar na yoon ba pare li tax mu jaar yoon mooy biñ leen di sos téeméer ak ñaar fukk ngeen woon tey benn rekk ci dund muy seen bos moo tax ma ne foog ma taxaw ci yow beneen bi mooy xam nga sànq ba léegi ñi ngi fo ñi ngi ree ñi ngi fecc waaw dama nangu ngeen foo ngeen ree ngeen fecc ndax ku liggéey jëriñu te da ngeen di liggéey da ngeen di xëy fajar di dang-dang ngeen di xëy fajar di daw ngir njaboot da di xëy fajar ngir suturaal waajur yi kon nag bu waxtu foo jotee waxtu ndamu jotee da ngeen koy def jóg leen tàccu seen bopp ngeen foo yéen a ko liggéey bi ñu nekkee ay ndaw ndax xam ngeen membre gouvernement fu mu dem dañ ko koy dañ ko fay yebal wala ñu yónni ko fa ñun nag kenn ñu mën a ci jëfam mooy le président Macky Sall kon bu fekkee ne yitteem yëpp mooy nañu xool nu ñuy taxawalee askan bi yaakaar naa ñi ne fii ma seedeel leen fii am na ay jamono kenn mënu fi ñëw dañ fi def assainissement def fi tali def fi yoon kon nag yitte président Macky Sall mooy suba ngoon guddeeg bëccëg di defal askan bi di seet nu ñuy taxawalee askan bi kon askan bi bu ñu nekkee di liggéey ba moom ci coobare boppam mu ne damay yëkkati secteur bi ñuy wax économie sociale et solidaire nga xam ne doole ci réew mi ndimbalu état dana la fa fekk ma ne bu ngeen ma wooyee foog ma ñëw te nag PCA centre boobu ngeen di def lu am solo ndax dafa dëppoo ak li ñuy wax économie sociale et solidaire kon la ñuy war mooy danañ taxaw seen wet pour mu taxaw te bëgg naa ngeen gën a jëmmal économie sociale et solidaire ay principe ak ay valeur ci li ngeen di liggéey ndax buñ doon jéem a tënk tey lan mooy économie sociale et solidaire sang bu baax la dafa ne woon mooy liggéey am ci dërëm ak ngërëm kon nag na ngeen ko jëmmal bu baax a baax ci ngeen beneen bi ci des nag mooy damay bañ nag ñu ne damay politique ndax nag représentant maire dafa wax lu am solo sànq dafa ne nañ bàyyi politique financement bi yaakaar naa commune bii ñu ne waa PDS ko jiite kon nag loolu rek wane na ne politique wuñ li ñuy jëmmaam di ko encouragé mooy liggéey ku liggéey ku ne jëriñu ku liggéey ku ne état bi sekk la fa nga ne jàppale la kon nag li may woo askan bi mooy ne ñu liggéey nañu bàyyi maaj bu bari bi nañu bàyyi taal pënë nañu bàyyi saagante nañu bàyyi xuloo ñu liggéey liggéey tay liggéey suba liggéey ëllëg maa ngi di sant di leen gërëm jërë ngeen